bopp saaru suxuraf saar wi ñu bëgg dugg mooy suuratu suxuraf suxuraf nag mooy tekki wurus dana tekki tamit taar yàlla nag bu julee saaru lëmm mu tuddee ko benn baat bi mooy li ulamaaw balaaxa di wax tuddee lépp ci turu lenn ndax baatab suxraf benn yoon rek la ko yàlla tudd ci téere bi ci ci maanaam ci ci saar wi waaye terewut moom la tuddee saar wi saar wi màkka la wàcc am na ci benn aaya rek bu wàcc baytil muqaddas bi yonentu bi di def isra jiite yonentu yëpp ñu def juróom-ñaari sàppi mu jiite leen ñaari rakka jibril li xaamal ko muy was wasal man arsal naa ba ca laaya ja foofu baytil muqaddas la wàcc waaye ala kulli xaal wàcc gi mu wàcc baytil muqaddis terewut makkiyatu rek lañ koy tuddee wala maaw tafsir lañuy baaxoo bépp aaya bu wàcc njëkk yonentu bi di gàddaay ak suuf bu mën a wàccee rek ñu ne aayatun makkiyatun saar wu mën a wàcc wala aaya te gannaaw bi yonentu bi gàddaayee ci la wàcc donte suufu makkatal mu mukarama la wàccee tamit madaniyatun lañ koy tuddee moo tax kon mën nga wax ne saar wi léppam makka la wàcc saar wi nag boo koy seet juróom ñetti fukki aaya la ak juróom-ñeent ci maanaam ci ay aayaat booy seet xaraf yi ñetti junneye xaraf la ak ñeenti téeméer ñetti junneye xaraf ak ñeenti téeméer su fekkee da ngay seet kalimaat yi muy baat yi dafa lay jox moom juróom ñaar téeméeri baat ak ñeent fukk kalimaat yi loolu la lay jox saar wi day jàngale mbiri saari màkka yi li ñuy jàngale mooy mbiram pas-pas mbiram dekki mbiram nubuwatu mbiram ay dalaa il ay tegtal yuy tegtale kartan ak yàlla ga ak wéetaay ga dana tudd xisaab yonentu yàlla ibrahima ak baayam ja dana ci tudd xisaab yonentu yàlla muusa ak firawna nitam ña lu mel noonu lay saar wi di terete saar wi nag waxoon naa la ko ñaari kot la code la boo xam ne daal ñaari chiffre ñooy ñooy ñoo koy décoté muy xaalon ko ak miim muy xaa miim boo jëlee nag benn code bi mi ngi junji xannaan ismun min asmaillah beneen tur wi beneen code bi mi ngi junji turu yàlla wu ñu tuddee mannaan moo tax xaagi maanaam xannaan la miim gi mannaan la ñoom ñaar loolu lay junji moom saar wi saar wi nag mi ngi wàcc gannaaw bi suuraa wàccee yonent bi sallallahu alayhi ne nañ ko teg ci gannaaw suuraa lu tax dafa def ak moom munaasaba boo seetee ni jeexitulu suuratu suuraa jeexee ni la suuratu suura fu ubbee suuratu suuraa dafa jeexalee woon di jàngale téeréeb yàlla beeg màggaay gi wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina saar wa jeex fii tamit mu ne xaamim wal kitaabil mubiin kon munaasaba boobu mu am seen diggante kii dafa tëjee sa téere bi di alquran kii dafa tijje téere bi di alquran munaasaba boobu am seen diggante moo tax yonentu bi ne nañ leen toftale loolu kon mooy saar wi saar waa ngoog di suuratu suxraf suxraf di tekki wurus mbaa muy tekki taar màkka la wàcci juróom-ñetti fukki aaya la ak juróom-ñeent ñetti junne xaraf la ak ñeenti téeméer dafa tëb rek nag di wane alxuraan bàyyeekoo gim bàyyeekoo ci yàlla ak nekk gim nekk ci langu arab ndax bu ko wàccee woon ci langu ajam araab ya duñ ko mën a dégg te yàlla dafa baaxoo yonantu bu muy yónni dafa la yónni ci sa langu nit ña wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmi yi comme nitam ña nag ay arab lañ yàlla def alxuraan muy arab waaye nag alquran fa mu nekkoon ca lawhul mahfuz foofa amul arab ak lii ak lii waaye yàlla bi mu nammee nag mu jege nit ñi man koo jariñoo la ko def muy arab mu nekk xéewal waaye xaraf ya nekkoon ca lawhul mahfuz xarafu ca nekk moo ëpp maanaam jabalul xaaf la mu ëmb ci ay maanaa mu ëpp pepp suuf yi ak peppi doj yi ak peppu ndox mi waaye yàlla nag bi mu nammee mu jege ñu rek lañu ko roof ci yërmandeem wàccee ko ci suñu làng woo xam ne mën nañ koo dégg muy arab moom lay wax si nii mu ne bisimillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xewalaakoon bépp mindéef ci àdduna arrahimi buur bay xéewal ku ko soob ci àllaaxira xaamiim yàllaa xam lim ci namu wal kitaabi maa ngi gën ci téere bi di alquran almubiini téere bay aji leeral lépp lu dagan ak lu haraam téere bi leeral lépp loo xam ne lu jub la ak lu dëng innaa naka ñun yàlla jaxal naahu mu jël nañ ko quraanan muy alquran arabiyan bay ko jug arab laallakum mbastale yéen waa màkka mën a dégg maanaa yi ci nekk wa innahu naka moom alquran lu ñu saxal la fi ummil kitaabi ci ndeyi téere di lawhul mahfuus la day naa fa ñun moom alquran laalliyun aji kawe la téere yépp xakimun borom ak xereña la gu jotale afa nadribu ndax dañuy sabda ankum walis leen zikra alquran safxan ci paas an kuntum ngeen nekk xawman diw nit fii na ñoo xam ne dañuy bokkaale yàlla kon ayat yaa ngoog yàlla nee na alquran mi ngi ciy gëñ kon kii gëñ ak ca la muy gëñ benn la bokk na ci gëñ yi gën a yéeme yàlla muy gëñ ak alxuraan ji muy gëñ benn la yàlla alquran yàllaay alquran ay yàlla ndax alquran melo la ci melo yàlla yi ci ngay déggee sax ñiy laaj léeg léeg ne waaw alquran ak sayduna muhammad lu ci gën laajte ko matul suwaal yonentu bi mbindeef la alquran duwul mbindeef mais melow yàlla la bu ñuy wax dañuy wax ne yonentu bi moo gën ci mbooleem mbindeefi yàlla yi mais nag alquran moom duwul mbindeef mais dafa nekk di melow yàlla moo tax yonentu bi daan wax al alquran waxi yàlla la alqur alquranu kalaamullah laysa bi maxluqin yonentu bi nag ñuñ bind ña la gën waaye alquran moom kenn du ko gënanteeg yonentu bi ndax alquran mooy yàlla yàlla mooy yonentu mooy mooy mooy alquran mu gëñ nag ci téere bi di alquran ne def na ko muy alquran joo xam ne arab la wàccee na ko mu nekk arab ci lang wi waaye mooy rek bam ñu nammee yoor buum ak yërmandeem ñi man cee jëfandiku ci la nekk di arab waaye ba muy nekk di sa lawhul mahfuus foofa amul arab ak langue weeg noonu waaye ba muy jublu si ñun rek la ko def muy arab mu ne moom alquran nag nekkoon na ca lawhul mahfuus ndax alquran boo ko seetee dafa bàyyeekoo ci yàlla te bàyyeekoo wut fi ñëw ci lawhul mahfuus bàyyeekoo fa te bàyyeekoo wut fa ñëw ci asamaan si tiim ñu benn néeg bu ñu tuddee baytul izza loola nag mu ngi tolloog weeru koor moo tax alquran ne shahru ramadan alladi unsila fi alquran ñu door koo toxalee nag ci baytul izza di ko indil yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam diiram ñaar fukki at ak ñett ci kem ni ko yàlla programme ak ci kem nit ñi nit ñi di laajee dafa wuteeg téere ya ko jiitu woon téere ya ko jiitu woon yëpp di téeméeri téere ak ñett benn fan benn waxtu benn jamono ci la wàcc moo tax mënuñ ko woon a mokkal alquran nag pari xaaj pari détail la wàccee ci diiram ñaar fukki at ak ñett gaa yi taxaw ne waaw lu taree yàlla wàccee alquran euh, comme nam wàccee woon yeneen téere yàlla ne damaa xam ñi ngi ko séq ak sa nit ñi ni ñoree sa nit ñi ni ñu fasaaxee sa nit ñi ni ñu mënee laaj su ma wàccee alquran wenn yoon danañ la laaj loo xam ne doo ko mën a tontu ñu naan law laa nuzila hada alquran jumlatan wahidatan yàlla ne kazalika li nusabita bihi fuadaka warattalnaahu tartila kon loolu tax mu wuteeg tawreet moo tax tawreet mi wàccoon benn bis ñetti nit a ko mokkal li sa boor ñu ko mokkal ñu néew a néew leen injil noona demeet ba téere yooyu jeex waaye bii nag diiram ñaar fukki at ak ñett ci la wàcc kem ni ko yàlla programme ak kem ni laaj nit ñi ak kem ni yonent bi di tontoo ñaar fukki at ak ñett avant yonent bi di génn àdduna mokkalal na téere bi fukki nit maanaam ak ñaar fukki nit ak ñaar rek ñoo ko Quran ci jamono yonent bi fukki nit ñoon ak ñaar Aboubacar bokkut ci te mooy première xalifaam fukki nit ak ñaar ya Seyduna Omar bokkut ci mokkaltoon alquran ci jamono yonent bi fukki nit ak ñaar ya Seyduna Aliyu ñaari riwaaya moo ci ne ñii dañ leen mokkalutoon ñii ne juróom-benni saar rek la mokkaloon gannaaw si gi ba yonent bi génnee àdduna ci la tëju ñu ne kon fukki saar la mokkaloon ganaaw si gi ba yonent bi génnee àdduna ci la tëju juróom-benni weer door a mokkal téere bi ndax xare yaa taxoon kon ñu ne mokkal alquran du farata bu doon farata aboubacar mokkal ko ci jamono yonent bi ak omar ak ñi ci aju waaye nag mokkal ko bu dul farata tamit mokkal ci moom farata la ku la ci hëpp lu mokkal nag bu yowmal qiyaamee moo lay hëpp daraja ci aljana ndax xarafi alquran yi moo tolloog darajaatu aljaana yi xaraf woo jàng am nga darajatu ci aljana moo tax yonent bi daan wax ne iqra warqa jàngal ndax nga yéeg kon nag ku ci mënta yéeg ba mën a yéeg ca kaw fexeel ba sa doom mën a yéeg ba wàcc soo lëggee yàlla yéegee la ci sa darajaay doom ndax ku sa doom am kër fii ndakaaru bu la yàlla dimbalee ba nga ñëw ndakaaru wallahi doo fanaan doo fanaan àll doo fanaan biti kon tamit ku sa doom dugg aljana nga dugg mu gën laa kawe daraja te yow yaa tax mu am loola ala kulli haal danañ ko yéegee ci sa daraja te waxoon nañ ko ca suratu suura ca gannaaw kon aaya yaa ngóog li ci tegu di mi ngi wax ne yéen waa Màkka da ngeen a bëggoon rek ma bàyyi leen comme ay mala afa nadribu ankumu dikra safhan kenn du leen digal kenn du leen tere te ngeen gën a saay-saay ñëpp di bokkaale yàlla loolu mënta ne xataadatu ne yàlla bi mu njëkkee wàccee alquran ba ko nit ñi weddee bu ko xajaatoon ñëpp dem safara waaye da koo bàyyi rek muy wàcc ña yàlla def ci ñoom sens ki jamono yonentu bi gëm nañ ko gannaaw si gi ña koy gëm di ko gëm ba yàlla jobe ci jamono ji waaye duhut ne boo indee dëgg ñu weddi ko rek nga ne naa ko ajaat déeréet dëgg tamit ku ko am de doo ko joxee ndoor nga koy joxe par nànk ku am dëgg lépp di dëgg nga joxee ko ndoor ñi delloo la ko ndoor nga perte moo tax alxuraan léppam dëgg la waaye yàlla par nànk julli joxe asaka wa aj màkk or weeru koor dëgg la waaye par nànk tudd baatu seede bi lañ ne fukki at ba mu sax ñi indi julli ñetti at ba mu sax ñi door a indi asaka door a indi weeru koor bu yàlla indi woon lépp ndoor ñi delloo ko ko ne lii diis na ñun nuñ ko moo tax soo amee dëgg bu ko joxee ndoor da nga koy joxe par nànk muy gën di sax par nànk ba lépp sax moo tax mu ne wal kitaab bi gëñ naa ci téere bii di alquran al mubini bay aji biral dëgg innaa naka ñun yàlla ja'alnaahu mu jël nañ téere bi alquran muy alquran arabiyan bay ko jug arab la'allakum mbastale yéen taqiluuna ngeen mën a xelu ba dégg maanaa yi ci ne wa innahu naka moom alquran luñ saxaloon la fii ummil kitaabi ci ndey téere lawhul mahfuuz la day naa fa ñun moom téere bi da la alliyun aji kawe mbooleem téere yi hakiimun borom ak xereñe la bu jotale afa nadribu ndax dañuy sadda ankum walis leen sikkara alquran safxan ci paas an kuntum ngeen nekk xawman diw nit musrifiina ñi di way bokkaale yàlla wa kam arsalna bari na bu ñu yónnee min na biin ci yonantu fil na ki nga jiitu woon wa maa yaatihi musuleen a dikkal min nabiin ci yonantu illaa kaanu ba nekk nañ yestasiyon di way di yëjji bii ci àll bii ci yonantu ba fa ahlak naa xalak nañ ashada dañu gën a tar minhum ca sa gaa bat san ci kartan wa madaa wëy na mathalul awwaliina melaw ñu njëkk ña tam loolu jàngal jàng jàngal naa la ko man yàlla ci aayaat ya jiitu kon yonantu bi muñal aaya la ju ñëw di ko def tasliya di ko ndëfal ne ko muñël amul benn yonantu bu mosu yónni ca nitam ña lu dul ba nitam ña weddi nañ ko di ko yëjji waaye tamit mosu ñoo yëjjëb yonantu sax ca lu dul ba alag naa leen kon sa gaa yi buñ meloo meloo gaa ya jiitu woon fa ma jaaroon ak gaa ya jiitu woon rek laay jaar ñoom te alag leen kon na sa xel dal aaya jiti tegu dafay wane ne nag yéeféer yi seen wax ak seen pas-pas dafa wuutee seen pas-pas mooy màggal xiram di ko jaamu waaye koo ca intéressé woon ci ñoom laaj ko ku bind asamaan ku bind suuf ku bind wërsëg ku bind dee kamay kam lay wax ne moo ko def mooy yàlla kon ñoom saxal nañ lañ yàlla yàllaam nga ci bind ci wërsëgal ci ray waaye nag saxaluñu yàlla yàllaam nga ci jaamu moo tax ñay jéem a xaaj tawxiit di ko tuddee tawxiidul rububiya tawxiidul uluhiya tawxidul asma wa sifaat dañuy wax ne yéeféer yi saxalal nañ yàlla tawxidul rububiya waaye nag seen problème mooy tawxidul uluhiya ak tawxidul asma donte sax kaaj tawxid yooya bidaa la la la doon cosaan rek yonentu bi jàngale ko saxaaba yi jàngale ko mooy tawxid moom tawxid rek la léegi-léegi nag nit xaaj ko man caa jaaree muy escalier nga mën a am ñoo xéeféerloo loolu rek moo ci indi xaaj ba la ci gën a bari waaye tawxid moom mosta xaaj kon xaaj bi biddaa la di ko xaaj ne tawhid uluhiyaak rubuhiyaak asmaa woog sifaat yooyu duutoon luñ xam ki jamono yonantu bi sallallahu alayhi wa waaye lu ci mën a am ñoom yéeféer yi li ñuy jaamu jaamu xirami di leen màggal yàlla nee ne boo leen laajoon ko bind asamaan ak suuf dañ lay wax ne ki ko bind de mooy borom xam-xam bu bari bi ñuy wax yàlla ki ko bind mooy ki nga xam ne ku màgg ki ñuy wax yàlla loolu moom amuñ ci benn problème waaye nag bu bu dara desul lu jaamu rek ñi bokkaale yàlla di jaamu ay xërëm comme loolu mooy seen kon li nga ciy déggee yow tamit boo saxalalee yàlla bindam gi rayam gi dekkilam gi te sa biir jaamu gi yaa cay bokkaale dara ak yàlla baaxut kon yaa gaa leen bul def li alquran ne wa maa yuminu aktharuhum billahi illaa hum loola baaxut moo tax mu ne wala in saaltuhum wallahi su fekkoon ne laaj nga leen ñoom yéeféer yi man anakan xalaqa moo bind samaawaati juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf la dana danañu wax ne na bind na leen al asiisu aji not ci nguuram al alimu kay xamaa kon foofu rek la ñuy xem yàlla yokkal ci boppam ne allazi ki ko bind mooy ki nga xam ne jaala def na lakum ñeel al arda suuf mihaadan mu mel ni ki lalu xale loolu nag tashbiihu baliix la tashbiih yëpp façon tashbiih bi moo ci ëpp doole mooy tashbiih boo xam ne dangaa xasaf adawaatu tashbiih ba tamit maanaam xasaf tamit maanaam wëccu tashbiih ba loolu nag moo am ci tasbih bi moo tax tasbihu baliix la ko ulamaaw balaaxe tuddee wa jaala def na làkkum ñeexal leen fiyaa ci suuf lan ay yoon laalakum mbastale yéen tëx te duna ngeen mën a gindeeku mu ne kat boo leen laajoon ku bind asamaan ak suuf ñu ne yàlla asamaan fu ko yàlla tuddee ñaare ci alquran da koy jamoo jamoo mu ana salim fu mu tuddee suuf da koy mufratal lu waral suuf juróom-ñaar la waaye juróom ñaari yi bokk benn couleur yàlla wàccee ko muy benn asamaani juróom-ñaar lañ waaye bokkuñu couleur bokkuñu matière bii dafa xaw a mel ni përëm bii mel ni maanaam bettax bii mel ni xaalis bii mel ni weñ gu ñuul couleur yu wuutee tax yàlla di ko jamxo jamxo mu anna saalim rafaaxee waaw lu muy defati kasra su ko defee tamit nag yàlla bañ waxee loola saxalal ko yàlla yàlla yokkal ci boppam ne man mii tamit maa bind suuf mu mel ni berceau muy lalu xale mahdu la ñuy wax maanaam lal yi xale yi tëdd nga xam ne day nooy ànd ak dal maa leen defal suuf si noona waa bu suuf si doon yëngatu ngeen xam problème bu suuf si ñagasoon am ay dëkk ngeen xam problème bu suuf si ñëwoon tamit mel ni ndox ngeen xam problème waaye mi ngi nii ànd ak dal bu la neexee taxaw bu la neexee toog bu la neexee tëdd bu la neexee tabax bu la neexee dox loo fi yàgg-yàgg du la sàppi noo fi gën a yàggee ba gën fee gën fee gën a yàgg rek gën fee bëgg yàgg rek loo yàgg-yàgg ci suuf kuñ la tàggee bu dee rek nga ne ah yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ba kañ ci ngay nekk rek mu ne ma defal leen suuf si ay yoon yoon yi yàllaa ko tracé fu yoon war a nekk fekk na yàlla tracé na ko nag jël xam-xam ba roof ko doomu aadama mu feeñal liggéeyam yàlla nga ne yoon wii moo jëm Kaolack bii moo jëm Touba bii moo jëm Tiwaawan bii moo jëm Ndakaaru waaw bu loolu amutoon boo soxlaa ci dëkk yi te yoon amut foo jëm problème day am kon sant leen yàlla mi leen xàllal yoon yi te jamono gi nu gën di yàggee yoon ya di gën a neex bu njëkk ba yoon ya naqare woon nañ nekk ay ay yoon yu doy mu jigi ay raaraa di am mu jigi ay tali di am mu jigi ay autoroute di am nu jamono gën di avancé rek yoon di gën di jàppandi te loolu lépp yàlla lañ ko defal kon sant leen yàlla yàlla yemut ca muy wax tamit lim defaat nag mu ne walladi mooy buur ba nga xam ne nazala wàccee na mina samaay ci niir yi maa an taw bi qadrin ci kem seen haajo fa ansharna dundal nañ bihi ci taw boobu baldatan suuf maytan bay aji dee kazalika naka dundal googu tuxrajuuna def na génnee leen ngeeni way dund dekki bàyyi ko seen bàmmeel yi walladi mooy buur bi nga xam ne xalaqa bind na al aswaaja xeet ya kullaha léppam wa jaala def na làkkum ñeexal leen minal fulki ci gaal yi wal anaami ak gëlëm yi maa tarkabuna li ngeen i war li tas tastawoo ngir na ngeen na ngeen ñolgu ala zuhuri yi ca gannaawu gëlëm ya fu ma taskuru topp ngeen fàttaliku nicmata rabbikum xéewalu seen borom ida stawaytum ba ngeen xemoo alayhi ca gannaaw ga wa taqulu ngeen wax ne subhaana la si tudd na ma sell ak buur ba nga xam ne saxara tàggat na lanaa ñeexal ñu haasa lii wa maa kunnaa nekkuñu woon muqrinin di way xàttan lahoo ñeel ko wa innaa ñun nag la mun xaliboona way wëlbatiku lañ ilaa rabbinaa jëm ci suñu borom yàlla rek a yàlla yàlla nee na man mii maa leen wàcceel taw ci niir yi arab moo baaxoo lu ko féetee kaw rek samaaw la koy tuddee waaye taw bi bu doon bàyyeekoo ci asamaan si du xeg si fii taw bi ci niir yi rek la bàyyeekoo waaye sa pujam ne bii sax di terrasse bi arab samaaw la koy tuddee fali yam dut bi sababu ila samaa yi loolu kon loolu la ca namu mu ne bi qadrin yàlla fekkoon ne dafa taw lu hëpp ngeen loru lorule bu fekkee tamit dafa taw lu manqué ngeen lorule kon ndox bu ëppee lor ndox bu manqué lor man nag sama taw seetuma ko ci ni ngeen ko bëggee man may seet na taw ba war a toll ak na muy jariñee ma dem ma ma sottee ko noona xukamaaw yi nañ amul benn at bu taw ëpp moromam xat yëpp a xem lu muy taw waaye nag suuf ñi nga xam ne dañoo jël engagement ci yàlla ne gëm nañ bu fa mooy yàlla bëree rek yàlla wëlbati néewal taw ba ca ñoom dana dem ba buy taw sax bàyyi ma ye ñooy tax waaye bu mooy yàlla ga bëree ci jullit ñi jël engagement euh, dana fekk tawatul ngir ñoom waaye bàyyi ma yaa tax moo tax nag mooy yàlla gi li muy bëri ci suñu réew yi tax na at mu jot taw yaa ngi gën di néew waaye nag yéeféer yi nga xam ne ñoom jëluñ benn engagement àdduna dong lañ jël engagement yàlla dinaa leen ko jox ba mat sëkk noor ak nawet ña ngay taw moo tax boo fi nekkee ne waaw ñun kat ñi ngi nii ñoo tene yéeféer yi lu tax muy taw foofa ñoo ngi jëluñ benn engagement yow na yaa jël engagement kon su boobaa da ko war a jéem a matal kon amul benn at bu taw ëpp moromam moom kay nañ war a mel buñ ko melu rek yàlla am ñu ko wëlbatil léegi léeg sax dana dem ba buy taw bàyyi ma yey tax waaye nit ñi taxatuñ kon bi xadrin kon ndox bu xëppee lor su fekkoon dama leen a tawal mu mel ni tuufaan ndox mi toll leen ci ndigg mbaa mu toll leen ci baat fu ngeen ni dëkk seen gàncax yi dee seen jur yi dee seen bagage yi yàqu moo tax gis nga sax ma maanaam dëkk bi saa yu tawee ba mu indoone coow li du jeexati ci dëkk bi yaa ngi dégg morso yu xonq yaak ñaxtu yaa yaa ngi xool nit ñaag fa seen nañu nañu dëkkeeg seen seen néeg seen ron ya te loolu ab jamono bu tuuti lay doon kon nga xam ne loolu nag bu ñu ko dëkkee woon fu ñu jëm ak mu yàlla nag jàngale ci lu sew ne nag li ma ci namu man mi fekkoon suuf si dee ma sotti ko ndox mu tooy dekki saxal gàncax yéen tamit noonu ngeen di dee ci seen biir bàmmeel yi ma dekkilaat leen loolu la ci bëggoon a xamal mu ne ti man yàlla maa bind xeet yëpp xeet yi nag xeeti mala yi dugg mbaam yeeg xar yeeg bëy yeeg njanaaw yi te mbooleem xeet yi kenn ku ne ñax ga ngay lekk bokkut ak sa morom gi muy lekk man yàlla ma saxal xeeti ñax yi yii xonq yii ñuul yi zone yii mel beneen couleur ma boole ko tamit indi yeneen caf nga yu ci menn ndox mi lii dana taw maanaam la mu saxal dafa forox lii dafa saf kaani lii dafa wex xatt lii dafa saf suukar te loolu lépp maa ko def ci menn ndox mi kon yàlla rek yàlla xam nga bu fekkoon ne tey lii Baye Ibou Sakho di wax yàlla mënut affaire bu tawalee waa kaani ba pare dafa ne yéen wàccoo naak yéen toxal leen seen kaani gi yéen ñi am lu saf suukar yéen laay tawal bu paree mu ne yéen ñi amee limon lu forox yéen lay tawal waaye menn ndox mi dong ci la yàllay tawal ñëpp couleur ya wuutee caf nga ya wuutee gàncax ya wuutee bëgg-bëgg ya wuutee kenn ku nekk ñëw jëriñoo la nga am xéewal gi nag dafa bëri ci suñ bët ñu koy xéewloo ba sant duñ ca yàlla ndax léeg dara bu bëree sa bërëb doo ko sant yàlla waaye boo ko ñàkkee ngay door a xam ne li la yàlla jox moo rëy mu ne tamit maa leen tàggatal waruwaay yi mu tudd ci nag waruwaay gëléem booba moo doon Mercedes yi moo doon 4x4 yi moo avion yi maa leen tàggatal gaal yi booba ñaari tukkuwaay yi lañ am gaal rek buñ bëggee dem ci géej yi waaye tamit gëléem rek buñ bëggee dem ci jiir yi tey nag yàlla wa yaxluqu maa laa ta'lamuuna tamit waxoon na ko ci alquran maa laa ta'lamuuna nag mooy avion yi maa laa ta'lamuuna mooy métro yi maa laa ta'lamuuna mooy bato yi maa laa ta'lamuuna mooy féer yi maa laa ta'lamuuna mooy jakarta yi maa laa ta'lamuuna tamit tabaarakallaahu mooy 4x4 yeeg mercedes yeeg yeneen ya ci aju waaye alquran moo tax bàyyiwul dara mu ne nag waruwaay yooyu ma tàggatal leen da ngeen ma cee war a sant bu ngeen demee ba yéeg ca waruwaay ya ngeen sant ma ci xol sant ma ci sant ma ci làmmeñ sant ma ci xol nag mooy ngeen fàttaliku sama xéewal yi xam ne lii maa ko def wa maa bikum min ni'matin fa min Allah sant ma ci làmmeñ nag mooy subhaanallazi saxara lanaa haada wa maa kunnaa lahu muqrinin nga tudd loola moo tax yonantu bi mosaan a yéeg ci bàyyi ma bu mën a doon ci gëléem bu yéeg day wax bismillah bu demee ba toog ba pare wax ne alhamdulillah ñetti yoon wax allahu akbar ñetti yoon wax subhaanallah ñetti yoon door wax ne subhaanallazi saxara lanaa haada wa maa kunnaa lahu muqranina wa inna ila rabbina la munqalibu daal di ree benn bis Ali ibnu Abi Talib def na ko war ci fas wala mu war ci gëléem wax lii ma wax ba mu paree ree saaba yi na ko looy ree mu ne yonentu bi laa gisoon mu wax ko ba pare ree ñi laaj ko looy ree mu ne ku wax lii gannaaw bi nga waree ci sa waruwaay sa bàkkaar yépp yàlla jéggal la ko tàbbal la aljana xam nga loolu xéewal gu rëy rëy la moo tax kuy duggati sa oto buñ la ubbilee porte bi ngay patron waaye waaye sa tànkam ndeyjoor bi buy jiitu neel bismillah boo demee ba toog bala ngaa takk ceinture ba waxal allahu akbar ñetti yoon alhamdulilah ñetti yoon subhanallah ñetti yoon nga teg ci aaya ji subhaana lazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina la munqalibun yéen ñi nga xam ne tamit ay safoor ngeen nekk ci seen oto yi di encaissé wax leen ko moo xam ñi ci kalandoo yi moo xam ñi ci tata yi moo xam yéen ñi nekk ci jakarta yi yéen ñi nekk ci avion yi tamit bëgg a tukki bu ngeen duggee wax leen bismillah bu tànkam ndeyjoor bi dugg rek ci vol bi waxal loolu soo demee ba toog ci sa sées bala nga takk sa séentir tamit nga wax ñett yooyu ma waxoon la soo ko defee ci kartanal yàlla fa nga jëm yàlla mën naa dogal nga yegg fa ñaan tukki dañ koy waajal waaye tamit gis nga boo duggee ci sa waruwaay bu mu mën a doon jakarta la oto la bato la avion la kenn tuddut yàlla sàbbaaluñ yàlla bàkkaluñ ko saytaane day ñëw tamit dugg ca yow moom nag dana dugg ci avion bi te da amul billet nga dugg ci sa nga dugg ci sa oto bi yow transporteur bi nga encaissé gars yi ndakete seytaane mi ngi ci biir te mënoo koo encaissé nga dugg ci sa jakarta bi laaj waa ji 200 laa la yóbboo waxoo bisimilah moom mi nga moom mi yëg waxut bisimilah seytaane ñëw si nga supporté ko muy troisième client ba te laajul la joxewu ben dërëm ku supporté seytaane nag ni mu diisee ñaar moo lay xaar këriwe yu bëri ak accident rek lii moo tax accident yi bëri ñàkk tudd yàlla sa oto yi tamit tabaarakallaahu gaaw a yàqu lool dañ maa sogee fii ak damaa dal ci kaw nii sama oto sama pneu bi dafa crevé ndax seytaane dafa diis ku ko dugal ci sa oto am nga problème ku ko dugal ci sa avion am nga problème waaye boo xasee wax lii nag mu ne aw ma war a waaye dem seeti feneen kon buñ bañee yóbbuwaale seytaane ci suñu oto particulier yi bañ a yóbbuwaale seytaane suñu oto transporteur yi euh, suñu oto transport yi bañ a yóbbuwaale seytaane ci vol yi bañ a yóbbuwaale seytaane ci sareet yi maa ngi ñaan ku dugg booy balaa booy yéeg waxal bismillah boo yéegee ba pare neel alhamdulilah ñetti yoon allahu akbar ñetti yoon subhanallah ñetti yoon nga jàng aaya ji subhanalladi saxarana hada wa ma kunna lahu muqranin wa inna ila rabbina la munqalibun wa inna ila rabbina la munqalibuna moom la tëjee aaya ji tukki des ke dafa bëri tukki des ke bëri na ñi accidenté ci at mi yëpp maanaam ñi dee ci at mi boo ko doon calculer nga jël ñi ci dee ci accident ñooy gën a bëri moo tax yàlla ne booy yéeg ci sa waruwaay bi tukki yëgal ne kat su ma delluwaatul ci sama njaboot tamit ci yàlla laay dellu bari na ca ndax daal waru waaye lépp dansé la lu ci wóor amut xam nga jëlal ci oto lu ko gën a wóor a di ñetti tur ñoo dajee ci dugg ci oto ta benn wóorut ci ubbi nañ porte bi ñëpp dugg ñu ne tëjal gaa yi tëj ñu ne takk leen seen tiir yi ñëpp takk ñu ne taalal waaye baatab taalal ak takk ak tëjal ñetti yi raglu na de benn wóorut ci nga dugg ci avion bi tamit yaag sa marchandise mi avion bi jékki-jékki décollé naaw ci jaww gi di bëtt miir yi amul dara lu ko téye ci kaw amul dara lu ko téye ci suuf maa yumsikuhunna illa rahman moo picc mi naaw ba taalal mbagga mi ñoo yem atte nga xam ne tey bu doon daanu lu koy téye amut su boobaa tamit da ngay yëg ne di eh, dugg ca dellu gi sa borom bëri na ca waaw nga dugg ci gaal gi nag gaal géej géej amul bànqaas gaal gi sol sol ndox boole koo ngelaw li amatoo benn pexe su su boobaa tamit inna ila rabbina la munqalibun kon tukki des ke dafa bëri moo tax yàlla waxee na tamit boo yàlla demee desoo ca nga nga ñibbi ci sa njaboot santal yàlla soo demee tamit fekkee da ngaa dellu nga xam ne sa borom mi nga xam ne moo la fi indi woon moom nga delluwaat waaye nag tey accident yi bëri nañ ci ji jamono lool li ko waral yëpp ñàkk léemu yi ñàkk ñaan matukaay ci tali yi na mu war a mel yeneen nga ca aju sa fóori yeeg permis yu doy waar yeeg yàkkamti gi njëkkalante yi nit ñeeg ñàkk gi ñàkk discipline nit ñeeg ñàkk gi ñàkk yar nit ñeeg ñàkk gi ñàkk ànd ak seen sago lu ci bëree bëri bëri accident boo gis ni ñu bëri dee cere boo doxee boo toppee tànk bu fekk fa tànkam nit tànkam nit nag ci xanam gu mën a doon nag ci yi ma tudd boo ko demee danga ci fekk ci tànk yi benn bu ko waral kon lii yëpp nañ koy bàyyi xel yàlla nag eh, ba mu bëggee ñi deexandoor rek la indi maanaam demandoor yi ñi war a dee ñëpp ci vol bi yàlla enregistré na leen ñi bàyyeekoo fële ñi bàyyeekoo fële ñi war a dee ñëpp ci car bi wala ci set place bi yàlla boole enregistré leen bokk bokkuñ fuñ bàyyeekoo demandoor ñeen noonu tamit ci particulier bi noonu tamit ci gaal gi noonu tamit ci bateau yi noonu tamit ci métro yi nga xam ne tey da ngay dégg accident ba am na ñeenti téeméeri nit ñaar ñeenti junne nit loola xam nga accident wu waruwaay rek moo ko man deegu toll noona kon yàlla nañu yàlla sàmm sàmmal ñu kon yàlla bàyyi na wax jooja ci yéen ñi yore waruwaay yi ngay dugg nag ci lim def nim rëyee ak nim màggee terewut bokkaalekat yi ñi ngi wutal yàlla kaaj naan malaaka yi doomi yàlla yu jigéen lañ ñoo ñaaw làmmeñ ñoom bëgguñ jigéen di jël jigéen giñ bëggu di ko askane yàlla ku ci am doom ku jigéen yaa ngi bëgg a rey sa bopp yow nag nga ne li ma bëggu naa ko jox yàlla li ma bëgg na ma ko yàlla jox xam nga ne yar woo de beneen bi mooy doom kaaj la ci waajuram ndax yonentu noon faatimatu bataatun min nii fatimatu dogit la ci man su boobaa kon nag doom xaajit la ci kon bu ngeen ne malaaka yi doomi yàlla lañ kon ñoom dañoo xaaj bu ñu bàyyee ko ci yàlla la te loolu wax ju bon la te doom boo ko waxee ne malaaka yi doomi yàlla lañ xanaa dañoo niroog yàlla ndax waajur yàgg naa niroog doomam doom yàgg naa niru baayam léeg-léeg nga gis koo xam ne xam na askan lool bu leen a jàkk rek ne diwa la jur yow wala mu dégg sa kàddu rek ne diwa jur yooyu yëpp ngeen koy askane yàlla te mooy li ko gën a métti ndax yàlla saa yoo ne am na doom ray nga ko saa yoo waxee ne yàlla am na doom rek tëliloo nga ko doom ñaar lañ koy defee dee la nga doon sémb mu mottali ko mbaa nga nekk fi tële li nga sémboon mu mottali ko waaye ku dul dee doo tëli looy defee doom inna laa ala kulli shay'in qadir lu muy defee doom moo tax mu ne wa jaaloo def nañ lahoo ñeel yàlla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaaj innal insaana naka xeetu doom aadama ji wax lii la kafoorun weddi haa kon la mu biidun kay aji biral ak weddi am wala bàyyil yéen a ngi wax ne ittaxasa jàpp na moom yàlla mi maa yaxluqu ca lam bind banaatin ay jigéen wa asfaakum mu jagleel leen baniina bil baniina ci doom yu góor te yéen a ngi nii wa ida busira ndéem bégaleef na ahaduhum kenn ke ñoom bi maa ca la nga xam ne dara ba sadd na ko li rahmaani ñeel yàlla masalan ci niroo xalla mujj na wajhoo xarxara mam ba muswaddan di lu ñuulal wa fekk mbir moomu moom kasimun kuñ feesal tepp la ci njàqare ma ngay wax ne yàlla ne waaw ah ndax yéen da ngeen di jox yàlla man koo xam ne yu nasawu def na mottali kooko fil hilati ci takkaay wa huwa te mbir moomu moom xayru mubiinun duut aji mën a biral fil xisaami ci xuloo yéen a yab yàlla yàlla nee na yéen bëgguleen jigéen di ma féetale jigéen te jigéen baax na góor baax na waaye seen ak doodi ak seen ak mbon tax ku ma may doom ji jigéen ci yéen ngeen ne dama koy téye ànd ak gàccaam wala gàtt gàcce gu gàtt moo gën gu gudd nga gas ba mu nga suul loola ngay def ayum siku ala hunin am yaddu suhu fi turaabi allah saa maa yaxkumuun ak wa idal mawudatu su ilat ci loolu ngeen nekk dëgg dëgg nag li ngeen bëggut ngeen féetale ko yàlla li ngeen bëgg ngeen féetale ko seen bopp ah tilka idan xismatun diisa wallahi loolu mooy xatte bu jeng seen xatte bi jubul de te yéen a ngi nii képp koo xam ne ni bégal naa ko gis nga yàlla wa bu busira la wax ndeke doom ju jigéen ji ñuy bañ sax mbégte la ndax doom doom kon doom bu jigéen mbégte la moo tax ci la mag ñi wax ne ku yàlla may ci at mi wërsëgal la doom ju jigéen at mooma atam xéewal lay doon ci atam naataange lay doon atam ubbeeku lay doon ci yow da ci yëg yokkute ba yëg ko te doom bu jigéen gi ngeen def muy naqar mbégte la ndax kum mën a doon ngay góor mbaa ngay jigéen jigéen moo la gàttandu ci àdduna bi ba nga demee bay génn àdduna li nga bëgg su amee muy gudd fan jigéen moo lay mujjee ku mën a nekk jigéen la gàttandu ndax moo la jur ëmb la juróom-ñeenti weer ngay góor ngay jigéen soo demee ba màgget mën a tuloo sa jabar yaa lay yore yow boroom kër gi jigéen lañ ñoo lay yore ba jébbale sa borom bu fekkee jabar amut wala mënuñ laa yore ñu dem seeti sa doom yu jigéen ñi ñëw yore la wala ñu dem seeti sa rakk ya mbaa sa mag ñi ñëw yore la mbaa sa tante ya naka noonu tamit soo nekkoon jigéen am doom dem ba war a génn àdduna nekk mag sa doom bu jigéen bi la ñuy woo mu ñëw toppatoo la ba jébbale sa borom kon nag ki njëkk ci yow mujj ci yow waroo koo bañ yàlla nag aaya ji ni mu portalee leen mosuma gis portale bu mel nii maanaam ku ma ci may doom bu jigéen bii nga xam ne mbégte la waroon a doon yow sa mbégte ma yaa ngi ko remplacé jël sa sa lex yi yaa ngi ko guux ànd ak naqar ànd ak mer boole ko maanaam di fuuñ fuuñi ngir maanaam ne li ma yàlla jox daal bëgguma ci dara ba léegi tax loolu tamit voilà bul na ci jamono am na ñoo xam jigéen waxuñ ca dara moom bu buñ leen annoncé sa soxna si am na doom lan la mu ne jigéen mu ne musiba mi ngi ma indil nag du jeex ñoom doom yu góor rek lañ wax te nag fu mel ni jamono ji ah doomu jigéen yi baax nañ te doomu jigéen yi xam nañ jom de borom kër gu wax ci ji jamono doomam yu jigéen ñi yërmande gi ñu am ci moom ak ñëwante gi ñu am ci moom ak toppatoo gi ñu am ci moom boo moytu doom yu góor yi amuñu ko moo gën a bari soo fi amoon ñaari doom kii di góor kii di jigéen ñi am lu ñuy fayee ko ci soldu boo moytu li la doom ji jigéen jiy jariñ moo ëpp li la doom ji góor jiy jariñ doom ji góor ja bu amul sens la muy jariñ gorom ya di ko jariñ jabaram ja mënul ko ci baayam mag yaayam tax ñu mel noona may leen jabar a gën sax jur leen léeg-léeg mel noo xam nit mel noo xam ne may ko jabar a gën jur ko te loolu du jeex kon ki leen yàlla may bu leen ko xeeb yàlla tamit na yéen a ma yab ba di ma askanee kuy mottalikoo takaay jigéen taaram dafa manqué takkaay la mën a mottalikoo moo tax jigéen lu mu rafet rafet dana mottalikoo takkaay uti ay jaaro nopp uti seen takk ca baat ba uti ay jaaro ay ay ay lam yu dul jeex takk ca takk ca loxo ya ña ngi tey yokk di puudaru ña ngi tey yokk maanaam euh, di peinture seen xar-xaram yi léegi-léegi sax nga dajee ceeg koo xam ne waat naa ci yàlla boo teeloon na xeewu ne rab la kenn du la weddi moo tax benn waay mos na maa laaj ne ma waaw man faru rab yi dañoo bari ci jigéen ñi bu ëpp lu ciy sa xalaat ma ne ko jigéen ñi niru rab faru rab yu góor yaakaar ne seen far lañ rek ñu ñu dugg leen loolu rek moo ko waral ndax nit ñuy solo kenn xamul lan la yàlla ne yéen a ma yab ba may askani ko kuy mottalikoo taar lu mu rafet rafet bu mottalikoo hut taar yooya rek du rafet kon nga déggas tamit ne góor taaram dafa mat bul mottalikoo ci dara bu fi nekk di mottalikoo ceen matu ko sa taar mat na bu fi nekk di mottalikoo lam sa taar mat na bu fi nekk di mottalikoo ay jaaro lu ëpp benn moom la yonent bi takk rek benn rek te bu mu paase dërëm ab yoon bug la ëppal benn jaaro yow daal peñeel boo amee diw diwal soo mënta toppatoo sa karaw ci teral ko nga wat ko loolu lépp sariya digal na ko nee na ku am taraw ku am karaw toppatool soo ko mën toppatoo watal jeex na sa taar bi dem boo fa nekkee nag ku xas mat nga bëgg a nga bëgg a mottaliku motti lay doon loola baaxut mat nga ba pare euh, kon aaya ji dafay xas góor guy góor guy gànjaru aaya ji dafay dafay xas góor goo xam ne góoru toilette kat la fu mu toll di toilette rek moo tax ñaar bu ñëwee di la may jabar kii di xeeñ porfon yu seer yi jar ñaar fukki junne di sol yére yu seer yu jéggi dayoo ak dàll yi ñuy takk nit koo xam ne balaa ma mat faw mu takk boppam takk dàllam yi takk boppam su moytuwul may ko waa jëlee nga xam ne tëneem ba daal na mel melut noona ndax kat lay doon góor ak nooskat ak góor ak liggéeykat boo leen a jàkk rek xàmmee leen su boobaa nag mayal sa doom góor ak liggéeykat moo gën nga may ko góor ak nooskat góor ak nooskat moom ku ñu yore dong lay doon foofu lay mujj du du du du maanaam góor moom toilette du wallam jigéen moo war a toilette ndax dafa manqué kii nag mat na peñewul rek soo amee diw diw su ko defee boo amee mbaxana sol dem di dem bu ca dolli dara moo tax kon aaya ji loolu lay tegtale di ci tegu nag mi ngi wax ci ñoom yéeféer yi wax ne malaaka yi doomi jigéeni yàlla lañ da wax ju ñaaw xam nga wax loo xam ne amoo ca benn firnde ne malaaka yëpp ay jigéen lañ yàlla kat dafa gorewaale ak jinne yi ñu jural ko ay malaka yoo xam ne jigéen lañ xam nga wax ju ju ñaaw na yàlla nag ne leen dama leen di laaj bu may bind malaaka yi ndax da ngeen koo fekkee bay wax loo dama leen di laaj ndax yéen seen bopp yéen a gis malaaka yi ñii jigéen te malaaka yi amuñ góor ak jigéen safaanu nit ñi lañ ñoom jëmmi leer lañ amuñ na ñuy góor lañ amuñ na ñuy jigéen lañ yàllaa leen di dollee ci bind waaye duhul lu ñuy dolleeku ci ay sëy nit ñeeg jinne yeeg bàyyi ma yeeg mala yi ñooy dolleeku ci sëy mais malaaka yi duhul ñuy dolleeku ci ay ndax amul góor ak jigéen yàlla nag moom lay wax ni bu yowmal xiyaamee yéen ñi wax ne malaaka yi ay jigéen lañ wallaahi danaa leen ko laaj ñu ne ñu ne suñ bàyyi lañ ko dégg te suñ bàyyi mosuñoo dégg ñu wax lu duhul dëgg moo tax ñun tamit ko moo tax mu ne wa jaaloo def nañ almalaykata malaaka ya allazina ña nga xam ne hum ñoom ibaadu rahmaani jaami yàlla lañ def nañ leen inaasan ñuy ay jigéen yàlla ne ashahidoo ndax ñoom dañoo fekkee xalqahum bindab malaaka ya déeréet sa tukkuta bu xal su naa bindalu shahaadatuhum seen seede ya wa yusaluna def na laaj leen si wax ji ñi wax bu yowmal qiyaamee wa qaaloo ñi waxati na law saa bu sooboon rahmaanu yàlla maa abadnaahum duñ jaamu malaaka yi jaamu giñ koy jaamu yàlla la neex maa lahum déet di ñeexal leen bi zalika ci loolu min ilmin ci benn xam-xam in hum déet ñoom illaa yaxrusul dul ñuy nar rek am wala bàyyil ataynaahum dañ leen a jox kitaaban téere min qablihi bu jiitu alquran téere bu leen doon digal ñu jaamu lu dul yàlla ndax loolu dafa am déeréet fekk fekk fekk fekk fahum ñoom mustamsikuuna way jëfandiku lañ bii ci téere boobu ba li fi nekk daal xaaloo wax nañ ne innaa naka ñun wajat naa fekk nañ ba naa suñ bàyyi ala ummatin ci yoon wa naka ñun timit ñun way dox lañ ala asaarihim seen jeexital ya muhtaduna way gindeeku lañ ba seen ala asaarihim kon ñoom dañ ne malaaka yi doo ay jigéen lañ doomi jigéeni yàlla lañ yàlla ne ba ma leen di bind da ngeen koo fekkee ndax seen bët yi dafa tege ci mi malaaka ba tax ngeen di wax loola kon tamit wax ji yóbbu yóbbuwaale na képp kuy kàcc di sos te li ngay wax tegoo ki sa bët looy wax di ko seede mbaa nga koy seede ci nit ki ne la ko sa bët may wala sa nopp may la ko waaye nag léegi léeg nga gis nit ñi xëy créer fen woo xam ne amul maam amul baay dafa xëy rek juddu mën nañ ko xëy lancer ko ci internet bi mu siiw ñu yàq sa der sa doom yi nu ci ñoo dem école sa soxna yi mënuñ ci doon dem marché nga yàqu te buñ toppee lañ la yàqee dara amu ci te loolu du jeex kon ku mel noona yaag xéeféer yéen a bokk jikko ji ashahidu xalquhum sa bu tukkutubu shahadatuhum wa na kon loolu nit li mu wax dafa ko war a wóor lu la sa bët bi mayut bàyyi ko daa maa yaribuka ila ma laa yaribuk loolu la yonent bi wax bàyyi li la wóorut te jàpp ci li la wóor waaye suñ jamono ji li ko yàq lépp foog naa de yaakaar naa de defe naa de boo demee de te kenn demut lu fi yàqu loolu moo ko yàq boo demee yu dul jeex rek ngay dégg te amuñ ci benn preuve billaahi bëri na ku ñu yàq garam boo toppee tànk ba dara amu ci dara amu ci su ko defee nag kon ñu waxaat jeneen wax ci lëntal wax ja nag kàddu gi feeñ dëgg la waaye lañ na bu duhut dëgg mooy ne walaw saa ma maa abadnaahum bu neexoon yàlla ñun duñ jaamu malaaka yi dëgg la jaamu gi ñuy jaamu malaaka yi yàlla la neex waaye ba mu neexee yàlla tamit yàlla dogal ko gërëmut ko ñoom nag dañ ne yàlla da koo dogal gërëm ko ndax liy tekki ne gërëm na ko yàgg gi ñu yàgg jaamu malaaka yi te yàlla xalagut ñu loolu day tekki ne ànd na ci fekk nag dañoo xamut dañoo jàppee yàlla muy doomu aadama parce que doomu aadama lu mu ànd rek euh, lu mu d'accord rek ànd na ca ndax la muy d'accord toujours njëriñam la yàlla nag lu fii lu ko war a mën a jariñ moo fi nekkut boo tax danay d'accord ci loo xam ne nii danay danay dogal loo xam ne nii moom d'accord ci waaye tamit danay dogal loo xam ne dogal na ko ba pare tamit d'accord ca xam nga ne ak kéeféer ak bokkaale yàlla yàllaa ko dogal waaye gërëmut ko wa in taskuru yardahu lakum waaye tamit nag ak julit ak laab ak mbaax yàllaa ko dogal mais gërëm na ko ndax wala yardaa li ibaadihi l kufra kon la waxoon fële yàlla gërëmut loola wala yardaa li ibaadi kufra ak kéefér yàlla dogalu yàllaa ko dogal mais gërëmut ko mooy yàlla gu mën a doon ku ko def tamit mënoo koo def te fekk yàlla dogalu ko mais bi mu ko dogalee gërëmut ko topp yàlla gu nit def julli la xoor la joxe asaka la tuub la laab la yàllaa ko dogal mais ba mu ko dogalee gërëm na ko moo tax foo jàng ci alquran ne inna laaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbul mutatahiriin mais amul fenn ci alquran fu yàlla ne inna laaha yuhibbul kaafiriina amut amul fu yàlla waxee ne inna laaha yuhibbul kufra amut lu fa am inna laa aduwun lil kaafiriin yàlla kay noonu xéeféer yi la kon ndeke moo dogal kéeféer waaye terewul noonoo na ko kon bu fi nekk ci naan damaa def lu bon lu may bon bon doon yàllaa ko dogal nga bëgg a nga bëgg a def ko baas di ca dëgg yi mooy yàlla ah kay dëgg la yàllaa ko dogal mais gërëmut ko yàlla dana dogal te du gërëm waaye dana dogal tamit te gërëm safaanab doomu aadama la doomu aadama lu mu ànd rek d'accord na ca ndax la muy ànd lépp dana ko càmbar ba xam ne njëriñam moo ca ne yàlla nag lu njëriñam ne néewu fi ñun ñëpp buñ ko doon topp mel ni yonantu bi mënuñ ko yokk dara suñ bonoon ba mel ni iblis mënuñ ko wàññi dara moo tax muy dogal lu bon ba pare te maanaam fekk gërëmut ko loolu mooy waral loola kon seen wax jooju euh, euh, kàddug neen la goo xam ne dañ caa namu kàddug dëgg la guñ namu neen kese kon loolu lañ wax inaa wajadna abaana ala ummatin léegi nag yàlla nag di defal yonantu bi ci aaya ji tegu ci ne ko muñal waay wax ji ñi wax la lii lañ fekkoon suñ bàyyi ci moom la ñuy topp waaye waaye amul benn yonantu bu ma mos a yónni tuddul ba gaayam yi lu lañ ko wax moo tax ngay yëg ne ñu baax ñëpp kàddu gi leen wax benn la ñi ñëpp kàddu gi ñuy wax tamit ñoom benn la kese ñoo niroo moo tax mu ne wa kazalika naka weddi gi ñi weddi la maa arsalna musuñoo yónni min qablika lu la jiitu woon min xaritin ci ñooñ dëkk min nazirin ci jenn aji illaa qaala lu dul ba wax na mutrafuha ñuñ xéwiloo ña muy patron ya ne innaa naka ñun wajat naa fekk nañ aba naa suñ bàyya ala ummatin ci yoon wa innaa naka ñun muqtaduuna way roy lañ ala athaarim seen jeexital ya bu ko defee yàlla wax yonantu bi ne ko xul wax leen ne ah ndax da ngeen topp seen bàyya aw adee nga walaw jitukum donte indil naa leen bi ahdaa ci lu gën a jub mi maa wajatum li ngeen fekkoon ale ci moom abaakum seen bàyya su ma leen andi leen lu ko gën a jub du ngeen ko bax xaaloo ñu ne ko innaa naka ñun daal kaafiruuna way weddi lañ bi ci li ñu andil wala kaafiruuna way weddi lañ bi maa ci lépp loo xam ne ursiltum yónneef na la bihi ci moom weddi nañ ko yàlla ne nag kon nag fanta xam naa mbugal nañ minhum ca ñoom fanfur xoolal kayfa kaan naka la nekkee aqibatul mukadibina mujjëg way weddi na mooy mbugal rek kon sa gaa fa may mujjëg gaa yi noox ya mujjoon fa gaa yi yonentu yàlla ibrahima yaak muusa ya fa laay mujjëg sa gaa yi amul kenn ku ma mos a lu dul ba wax na lu sa gaa yi wax waaye tamit bañ ca saxee tamit man yàlla mujj naa mbugal leen kon dama ne lu la fi loo fi mën a am ne sama baay laa ko doon ne mbaa sama maam soo gisee lu ko gën jàppal ca loola waaye bul wane lii kat suñ cosaan la dañ koo donn nangam ak nangam munuñ koo bàyyi nangam ak nangam léegi-léegi ñuy wax ko ci fomi di jël benn façon benn fomi lu mel nii bëre tudd ko ne ah dañ ko doonoon ci suñ maam yi waaye boobaa nañ seet nag la nga xam ne suñ maam nanguwuñ ko ñu bàyyi ko wax dëgg yàlla tuuroo soow boo ko doon na sa maam tamit baaxul ñam kenn du ko toroxal ak yeneen ak yeneen boo jëlee loo doonnoo sa maam da ngay seet la ca dëppoog diine nga jël ko la ca dëppawut ak diine nga delloo ko loolu moo cay lu baax waaye nag ne lépp ma ko doonoo sama maam euh, moom bu dëppawut ak diine bu dëppoog moom tamit lépp laay jël du diine kon lii mooy dal gaa yi ne ñun kat lii suñ maam yi lañ ko fekkee mënuñ koo bàyyi kon tamit loo fi jëlee ci sa maam te yow li mën naa am li nga wax ne yaa ngi ko doonoo sa maam jooju ndax sa maam jooju xam nga lan la woon su boobaa tamit loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax bàyyi na wax ja ma ngay dal ci Ibrahima ak baayam baay ji nag lim ci na moom mooy baay taxam baay taxam bi di asara waaye baayam dëgg jullit la waaye baay taxam bii nag moo ko yar sonal Ibrahima lool Ibrahima nekk xale bu xëyee rek ràng ko xiram yi ne ko demal jaayi mu nekk xale manta gàntu baayam ngir ak yar ngir ak kersa bu demee ba ca marché ba ne leen ni maa ngi jaay loo xam ne ñàkk koo jënd moo gën jënd ko maa ngi jën maa ngi jaay loo xam ne dafay lore waaye du jariñ maa ngi jaay loo xam ne dana diisal te du la jariñ dara loolu ku ko wax sa marchandise mii gars yi wan ko gannaaw mu dem nag bàyyi ba ngoon jot mu ñëw ci baay ji ne ko sonn naa jaay fu ne dem naa fa jarut daal di daane ko mu mu toj mu ne ko comme nag yow indiloo ma xaalis indiloo ma buum nga bàyyil njaay xiram euh, xam nga kaw loo xam ne indiloo marchandise ma ñëw toj ko sa kanam bàyyi nan la bàyyi ne la bàyyil jaay lii kon su ko defee Ibrahima moom lay wax nag ak ni ko yàlla teelee gindi saanam ci lislaam ti gindi ki njabootam gi yépp képp kuy dereetu Ibrahima rek ku gëm yàlla nga moom lay wax si nii moo tax mu ne wa fàttalikul id qaala ba waxee Ibrahima Ibrahima li abihi ñeel baayam wa qawmihi ak niti baayam ya ne inna nii naka man baraun ak kalimatan muy kaddu baaqiitan bay aji des fi xaq bi ke njabootam nga laallahum mbastale ñoom waa Makka yarjiuna ñu mën a dellu ci diinay Ibrahima ja bal li fi nekk mataxtu yóbbalu naa yóbbal naa ab haawlaay yi gaay wa abaahum ak seen bàyyi ñu gudd fan lool xataa jaawum ba dikkal leen alxaqu dëgg mooy alquran wa rasulun ak ab yonantu mu binun bay aji biral dëgg waaye wala maa jaawum ba nga xamee dikkal na leen alxaqu alquran wala ko defee xaaloo ñu ne haada lii sixrun njabar la wa innaa naka ñun kaafirun way weddi lañ bihi ca moom wa xaaloo ñu ne law laa nusilul taa wàccee haada alquran ji alquran ala rajulin ci góor min qaryatayni mu tukkee ko ci kenn ki ñaari dëkk yi muy taayif ak makka ñaari dëkk yi nga xam ne azimin aji màgg la naxtu sababiyu la moo tax du topp man'ud ma ci tasniya ak jamoo mufrad du topp man'ud ma ci góor ak jigeenal waaye dana ko topp ci li'rab bu rafaaye mu rafaa bu nasabee bu nasab euh, bu bu kasra mu kasra waaye nag góor la nan te dafa war a nekk góor yoonam nekku ca moo tax mu ne min al qaryatayni waxut azimatayni mu ne azimin su ko defee kon aay ji mi ngi noona Ibrahima li la waxoon bàyyi taxam li ngeen nekk dañ naa ca maa ngi jaamu kii ma bind di yàlla dana ma teg ci yoonu siraatal mustaqim yàlla moomu nag def na kàddu googu mu wax maanaam inni zahibun ila rabbi sa yahdini muy wéetal yàlla moom benn baat mu tuddee ko maanaam wa jaxalaha kalimatan baqiya majaas la mu def ko muy lu des nag ci njabootam gi ñëpp dañuy wéetal yàlla ndax moo ko ñaanoon wajnub ni wa baniya an na'buda lasnaama yàlla nangu na ñaan googa yàlla nag ne man guddal naa seen fan ñoom ñii ak seen fanu bàyya ba yonantu bi fekk leen fi alquran fekk leen fi ñu war a gindeeku ñu ne alquran ak yonantu bi yëpp njabar la ñu ne alquran sax su fekkoon ne dëgg la lu taa yàlla wàcce ko ci ñaari borom daraja yi di ay patron di ay kilifa muy maanaam urwatum nu mas'ud ak maanaam walidum nu mughira kii nekk màkka kii nekk taayifa ñii kay bu doon wax yu di wàcc ci ñoom la gën a jekkee dañoo foogoon ne jekk ak wax yu mu ngi nekk ci patron bu am alal am am ñu la topp di la hubbil buntu yaag di la tëjal oto yaag fekk yàlla seetul loola ndax yàlla xam na allahu alamu haythu yajalu risalatihi fa muy def risalaam ba xam na ko de su boobaa nag kon li ngeen foog amul waaye yàlla dimbali nag kañ doon wax muy orwatu mu gën a tuub dugg ci lislaam rafetal tuubam lool walid ibn mughira nag moom ci kéeféer la dee waaye doomam baax lool bokk ci jàmbaar lislaam di xaalid ibn walid ku ne dégg na ko Euh, médd la moo xam ne yàlla du génne na ci moom luy dundu euh, kon loolu léeg-léeg day am yàlla na xool lim leen tontu ñu ne waaw lu tara yàlla al kuraan ji di wax yu gi mu wàccee ko ci urwatum nu mas'ud ma dégg nga wala mu wàccee ko ci walidum nu muxira yàlla ne leen waaw ndax yéen a moom sama wërsëg wi wërsëg yéen a ko moom wala maa ko moom yéen a koy joxe maa koy joxe ñu ne ko ah kay yaa koy joxe mu ne man nag yonentu bee ma neex moom laa ko jox kon nag ñi ngeen wax man neexuñ ma joxuma leen ko li ngeen foog du xam nag moo tax mu tontu leen li tontu bu fasaa la ne waaw ahum ndax ñoom si yaqsimuuna ñooy séddale rahmati rabbika yërmandey sa borom di nubbuwatu ñu ne déeréet yàlla ne nax nu ñun ñii xasam naa ñooy seddale séddale baynahum seen diggante maishatuhum seen wërsëg wa fil xayaat ki dund duniyaa bu jege bi wa naa yëkkati nañ baaduhum lenn ke ñoom fawqa baadin ci kaw lenn darajaatin ay daraja li yettaxisa ngir na jàpp baaduhum lenn ke ñoom baadan lenn suxriyan ngi nekk ñu tàggat di leen liggéey te leen fay wa rahmatu rabbika aljaanaay sa borom xayrun moo gën maa mimma yajmauna li ñuy boole ci àdduna yëpp ci alal kon gis nga ko yàllaa ngoog mu ne maay séddale nag yonentoo ma neex moom laa ko jox ñi ngeen di wax neexuñ ma bu ngeen leen gisee man gisuma leen mu jeex kon yàllaay joxe ku yàlla jox ken mënu laa xeñ euh, kon dañoo foogoon ne daraja daal bu jógee ci nitu àdduna rek la jëm waaw waaw lu jëm ci darajaay àdduna mën naa jëm ci nitu àdduna ña waaye lu jëm ci wàllu bu jógee ca yàlla ña am lay seet ñi am réseau ñoo xam ne su leen joxee mbir mi danañ am réseau waaye ko xamul réseau yàlla ko dénk maanaam euh, compagnie bi ko xamul réseau boo ko denkee compagnie bi du sotti gars yi du ñu xam réseau aaya ji nag ci lay daanee yàlla day wax ne su fekkoo ne ragaluma nit ñëpp nekk xéeféer su ma jëlee wërsëgu àdduna bi yëpp xëpp ko xéeféer yi wallahi kon danaa leen wan ne àdduna ñorul ma kon danaa jël wërsëgu àdduna bi yëpp jox ko xéeféer yi jullit ñi ñàkk lool bu ko léegi ma fay leen aljana waaye nit ñi nag ni bakkan bëggee teraanga te bëgg teraanga ju teew su ma jëloon sag wi yëpp xëpp ko xéeféer yi jullit ñi xamuñu dara kon ñëpp murtat fekki xéeféer yéen yéen ñoo ko yor wax na dëgg mu ne waaye bu taxutoo nag loolu wallaahi dinaa leen defal kenn ku ne ñaari néeg néegu wurus néegu xaalis lalab wurus lalab xaalis danaa leen defal tamit maanaam euh, euh, euh, escalier yi ngay yéeg jëm ci sa kaw étage bi bu wurus ak bu xaalis waaye yëg naa ne su ma ko defee ñu ci bëri seen pas-pas ni mel ak nit ñi niñ bëggee xalal ak daraja kuñ gis mu am ko ñi foone moo nekk ci dëgg danañ ràllee dem fekki kooka waaye loolu rek moo tax waaye li kon daa leen wane àdduna de ñorut ma man yàlla ñoore dina ma ba mel ni la yonentu ba waxoon dafa romb benn médd benn mburtu bu dee médd ñi sànni ko ci àll ba si yonentu bi laaj saxaaba yi ne waaw lii lu tax gaa yi sànni ko ci seen àll bi nii ñu ne ko dafa amul njariñ la mu ne gis nga médd mii nim ñàkkalee njariñ seen borom nu ko raw la yàlla àdduna ñàkkalee njëriñ yàlla moo tax yonent bi ne àdduna medd la tan yi rek ñoo koy xëccoo koo gis muy xëccoo dara jaay àdduna nga yëg nga ñàkk yëg tan la boo xamee jikkooy nit tamit bu yoree maanaam bindam nit derab nit kàddoog nit jikkooy tan la yore koy tan nag du bañ dara lu jot lekk kon ñu yore jikkooy tan dafa bëri du jeex àdduna ku koy xëccoo mu jaral la liggéey nit mu jaral la yàq nit mu jaral la lu nekk nga yëg nga ñàkk yëg dootoo nit waaye tan buñ solal jëmmi nit nga moom moo bari benn yoo mbaggam damm na yàlla laaj ko ne ko sa mbagg mii doo ma ko jaayee àdduna mu ne ko sama mbagg mii ma gënal àdduna ak lu ci biiram moo tax yonent bi ne yoo mbaggam yoo bu doon peese ca yàlla kem àdduna kon àdduna xéeféer du fi naan maanaam guuxam ndox kon nga xam ne kon àdduna tan yi rek ñoo koy xëccoo waaye ñi am cër ci yàlla xam li xew xam nañ na àdduna jaar waaye rek la waaw waaw sa jaaruwaay ji nag boo ko toppee bànneex ba la la ciy xëccu nga topp ko ca xalal ya topp ko ca jongama ya topp ko ca la ca aju wallahi bis boo deexee da ko réccu te doo mën a dëppaat ñun nag dañoo di waaye ñoo xëpp ñoo xëppale waaye doxadi nañ ba mel ni dañoo xëpp doxadi nañ ba mel ni dañoo xëppale waaye nag jullit ñi ñoo xëpp ndax juróom-ñaari milliards ak li teg moo nekk ci àdduna bi mennam yonentu yàlla Muhammad moo ci am jaboot gu toll ni ñaari milliards ak juróom-ñaar téeméer lu teg ñeneen ñi ci des bu ñu séddoo kenn xamul lu toll noonu kon ñoo xëpp waaye tamit ñoo xëppale ñun julli ñi la yàlla jagleel petrol beeg yeneen ñi ci aju waaye tey nag bu ñu xëppee xëppale dem ba mel ni dañoo xëpp xëppale ñu suñu doxadi rek ak suñu nasax moo ko waral moom la alquran di wax nii moo tax mu ne walaw laa an yakuna su taxutoo nag ragal ak nekk ak naasu nit ñi ummatan di mbooloo waaye datan bay benn nekk ci diine kéeféer li ko noonu la jaal naa danañ def ñun yàlla li man yekk furu ñël képp ku weddi bi raxmaani ci yàlla li buyootuhum ñeel seen néeg ya fan ay maanaam téeg ma mu nekk min fiddatin ci xaalis wa maari yi ñu def escalier ya yazharuna yooyu danañu héegee xale yaa ca moom ñu def ko muy xaalis wali buyootuhum ñeel seen néeg ya abwaaban buntu yi ñu def ko muy xaalis wa surura ñu def seen lal ya yattaki'una yooyu danañu sukkandikoo xale yaa ca moom ñu def ko muy xaalis wa zuxrufan tamit ñu def ko muy wurus li ñu def ci xaalis ci lal ci ay terrasse ci ay maanaam escalier nañ ko defee xaalis ñu defaleen ko tamit ci wurus wa in kullu zalika de lépp loola nag lal wurus ak xaalis ak escalier ya du dara lama mataawul xayaat lu dul mu yóbbal ab àdduna duniyaa bu jege bi wal axiratu xaljaana bi rabbika fa borom lil muttaqina ñeel ñu ragal yàlla ñi yàlla nañu yàlla may xaljaana kon dama ne am lalu wurus ak gaa yaa ngi koy def di ngir bew am na ñoo xam ne tey seen bew yóbbu na leen ci ñi am lalu wurus ñii lal ñii jël maanaam dalli wurus ñii jël seen i takkaay yoo xam ne tey soo ko peese woon yan ko xale bu ndaw munu koo yóbbu bew rek ñii itam jël seen boppi robino ya mu nekk xaalis wala mu nekk wurus ñii jël seen portable ya xoobee ko wurus ñii jël montooru or wala montooru jamaa wala montooru wurus di ko takk waaye montooru wurus kay wala or boo ko takkoon waroon naa gore boo deexee mu taxaw waaye moo gore hadi portable ab or wala portable boo xam ne la mu jar kenn xamu ko bu fekkoon ne gore na soo deexee dafa waroon a fay waaye bëri na ku dee koo xam ne ki yëgle dee xam gi mooy portable am ba waa ja dee rek portable bay continuer ñuy woote muy sone ba ñit wuyu ko moo diw doon laaj ñu ne ay dee na di mu ne lu ma ci xam kon lu tax portable bi deewut montor bi nga takk mu seer di jar ay millions yu dul jeex ngir bew rek boo bu goree woon boo deexee war naa taxaw waaye dangaa dee moom ci boppam ñu tekki ko takk ko ci loxol keneen muy continuer dox ne man intéressé woo soo ma taxee jug ti man taxuma laa jug kon yooyu yëpp dañ ko ci jàngee àdduna ku ko jàpp jàppul la nañ ko fi bàyyi dem jàpp yàlla mi nga xam ne bu ñu ko jàpputi moom mu jàpp ñu yàlla na yàlla defal ñu tawfiix yàlla defal ñu taysiir defal ñu naataangeeg barke ñu teg seen loxo yi ci baaraam yi foofu bañ del siwaat fii